boobu yàqu na dépanne loo xam ne dañ koy dépanne six wala sept mille ma ne ko yaa ngeen koy jël ngeen yéen ko sànni ko mbali dem dénkaane ji vërali <laughs> nag bocal bu naan ko ceeb bi jeex na ak dawlin bi loolu bëgg naa waaye xorom sax tey amuma ko ay waay suñu waxee xorom sax man lañ koy laal xorom maam da yàq nañu man kay liñ koy def mooy ñaan sax moom du doy ñu ngi koy ñaanal di ko ñaanal waaye liñ koy gën a ñaanal mooy yàlla may ko gudd fan ak wér barke Seydina Muhammad dara bañ koo dal ndax tey ji maam mii tey bés bu dara dalee ñun ñëppay torop barke Seydina Muhammad loolu sax wax ko baaxu waaye dinaa ko yàlla rek doom joo xamante ne ñëpp ko bëgg ñëpp dara du ma dal kenn jéppiwu moo tax na ñu koy bàyyi yàlla ak yonent bu tedd bi ak alaaj Fàll mi mu yaakaar ca kaw ca kanam moom rek laa bëgg jeex na Fallou Awa Bousso luy problème bi dara sama yaay dafa neex Fallou Awa Bousso jëflewuma jeex na càmmiñal ma dem bàyyi Serigne Abdou Karim yaakaar si la ba pare démb benn doomu sëñ Fall moo yónnee ci man barki Serigne Fallou Mbacke indil ma ay kaamil kaamil yaa ngi place ba sama mm. chéri noo def yaa ngi ci jàmm nuyu ma yow mi ngi taal maam Ndiaye mi ngi maam Ndiaye. yaa ngi ci jàmm. ndey yow laay xëy si ba ngoon di la wër. ndeysaan déggal la yaa ngi ci jàmm. Sëriñ Fallou xam ne billaay ndeysaan ay waay bul jooy bul jooy billaay maa la raw ndeysaan ndeysaan ndeysaan dëgg la billaay ndeysaan billaay ndeysaan dëgg la billaay foo jëm ne Italie ngay ñëw ay waay kontaan naa de kontaan naa bu baax a baax jërëjëf day jooy ndeysaan daa ñëw rek di gaññe di jooy ma ne ko bul jooy nag bëgg daa for ci waay mën dara